waaw man ma Mamadou Sow laa tudd dëkk dal jàmm fii Bill Clinton ñëwoon 97 ñëwoon fi seet fii woon waa dëkk bi doon visite benn procès ñëw dal ak man ah maanaam yëggi moo ko yëgee woon dafa xaw a nag nekk yëg bu xaw a gàtt sax ndax dañu jekk ci avertissement rek ni ma yow lay dalal bi ñu visité dëkk bi ni may yow lay dalal ah ma am ci kontaan lool ndax ku toll ne président Bill Clinton ñu ñëw seet ñu ne yow lay dalal loolu kontaane lu mag la ah ma am ci kontaane mbégte loo xam ne kenn xamul sax mbégte lu ne toll bi mu ñëwee itam wax dëgg yàlla mu dalak man mu nekk nit ku baax ku lewet ku am sécurité ku am ku baax la mook soxnaam ak benn doomam bu ñuy wax Ilaritun ah ñu wisit dëkk kër gi ñu dem ca tribune ba ñu waxtaan fa. Ah, ci kër gi. waaw dugg nga ak ci néeg bi. dugg na ma moom ci néeg bi tooga moom mook soxnaam ci lal bi. lu léegi ñu waxtaan maam may ko ginaar may ko béy mu ne moom sàmm la Ah, mu am ci kontaan ma toggal ko ah, laaxu ma toggal ko ceebu taxin mu def ni ba cëpp baaramam rek lekku ci daanaka ma jox ko soow itam mu ànd ak soxnaam ma teral ko daal moom itam wax dëgg yàlla ko baax a baax la baax la baax kon am woon naa kontaan kontaan ci moom lool ah am ci mbégte lool wax dëgg yàlla ginnaaw bi bi mu demee léegi am na yu baree bare waxoon nañu ne dana fi am waa yooyu ba léegi ñun maanaam ñu noon dana ñëw defal la fii benn projet dana ñëw dimbali la ci xale xale yi ñu tukki yooyu yëpp gis gisaguñu ci dara de. moo la ko man maa ko wax ne dimbali ma mbi doon naa sax lettre jox ko léegi ma bind leeta jox ko boobu ba léegi na am tontoogu ma waaw wax dëgg yàlla dëkk bi dimbali na leen ndax financé woon na fi projet ñu liggéey ci ñu ci liggéey ba léegi waaye ginnaaw bi man ak moom li nga xam man ak moom li ma war a defal moom dara egseeku ci moom ba tey maa ngi yaakaar rek da dañu yaakaar ne ku toll ne Bill Clinton bu ñëwee ci nit lu bon bon kooku war na sax suqali ko lu bon bon fekk la ci néegu ñax ne ngeen waroon naa fekk nga am tabax. te boobu ba léegi déggatu ci moom dara. ci moom dara ah ma ma du ma ma toog rek di dunde yaakaar ma may léegi may may liggéey di dundee rek xam na lu jot yàlla def ko rek loolu. néeg bi ko dalaloon lañ ma ci soo soppeeku boobu ak néeg bi ma dalaloon daal. waaw maanaam maa ko soppil sama bopp dara soppeeku ci waaw. ba tey ba tey néegu ñax la def naa ci léegi tuuti pan def naa ci ay tabaxi mool waaye ba tey li ko muur ñax la boobu ba léegi ah, lu ma ci am itam ma xam ne rek loolu yàlla indi la rek nit ñi nekk fooga ñu nañu ne jox na ma lu ne waaye wax joxuguma dara ne. moom kan la àndaloon. jabaram ilaari ton ak doomam bu ñuy wax kelsi xale bu jigéen moom la àndaloon. président Sénégal ñëwoon. waaw président Sénégal. ak fii nee nañ boobu Abdou juuf la boobu mi ngi yemoon Thiès la yem la ñu wax mu dëpp waaw waaw moom rek moo ñëw ànd ak sécurité bu doy nag ay jigéen ay góor kër gi yëpp dañu ko ñàgge woon xamee wuñ ko woon noonu waaw xamee wuñ ko woon noonu ci réyaayam wax dëgg yàlla ginnaaw bi mu demee lan ko doo ko xam waaw ñu ngi ñu ngi sant di gërëm daal waaw. tey boo ko gisoon loo koy wax Clinton. moo gisoon tey moo gisoon rek de ah, xam naa ne dinaa ko daal sama xarit nga ñëw nga ci man am naa kontaante waaye foogoon naa ne ku toll ne yow ci ku mu ñëw rek kooku war na soppiku lii yëpp defe na ne milliardaire la waaye boobu ba léegi maa ngi tollu fi ma toll rek waaw loolu daal moo nekk li nga xamante ni moom. waa nga di mu ngay xëccoo Amérique yëg nga dégg naa ko waaw dégg naa lu dégg naa loolu mu ngi xëccoo maa ngi ko ñaanal yàlla na moom réew mi ndax ku baax la maa ngi ko ñaanal bu baax a wax yàlla na gañe réew ma ah, moom itam ma jëkkëram itam maa ngi ko ñaanal muy fanam gudd lool moom ñu di gudd mu di daal di ndax ku baax la daal defaluma dara waaye mais Clinton projet bi ko fi indi woon moom loola sotti na moom. waaw projet bi muy financé woon fi moom wax dëgg yàlla financé na ko ba lépp jeex moo waral ñu ñëw ak waa dëkk bi seenu takkute ak seenu liggéey ak seenu manko moo waral mu ñëw fi ndax dañoo bokk liggéey di liggéey yàquñu dëkk bi ñoom yaakaaruñu kenn liggéey rek luñu yaakaar lu ñëw nag ci dëkk bi ñoo xam ne ñëw nañ ñu ko waaye ñoom liggéey rek la ñu xam. li nga ci séntu woon te jotoo ko est-ce que mas nga koo diis kilifay réew mi. mu maanaam daal musuma cee def dara dem ci dem nangam nangam nangam maa ngi yaakaar ne rek bés waree am rek dina am loolu laa laa defee bés ma ci waree am dara naa ci am dara rek bi nag dina demal ba nga xamante ne daanaka rek ah, xam ne lii yàlla dogalu ko waaye bés bu amee bari itam dina am dam daal loolu daal laa ci yaakaar waaw.